mbokk yi dégg ngeen euh, témoignage yi nga xam ne moo am foofu fi nga xam si nii fii lañuy ñuy pour yóbbu suñu papa Pène Mbaye Guèye euh, Moustapha Guèye ngi noonu waa Fass Mbao kilifa Mbao waa Fass Mbao yëpp ñëw nañu imaam yi ñëw nañu kilifa yëpp ñëw nañu taxawu Pène Mbaye Guèye waaw corbillard baa ngi noonu nga xam ne Touba lañ ko war a yóbbu oto yaa ngi noonu di yóbbu Père Mbaye Guèye mi nga xam si ni doomi Sénégal la doomu àdduna la sunu papa Mbaye Guèye di nit koo xam ne nit ku baax moo ngi noonu ñoo ngi noonu di dem euh, fi nga xam ni moom mooy Touba ngi noonu di ko yóbbu Touba ndax kilifa moo gaañu kilifa moo wàññeeku ñu ngi koy àdduna gépp oto yaa ngi dem Touba gis nañ fi Gris Bordeaux fi ñëw ci mbër yi ak ki nga moom mooy Moustapha Gueye rakkam waaw waaw wér nañ daal parce que créé na benn loo xamante ne nii dina feeñ suñu image dina feeñ suñu image yu écrit parce que bu ñu nee écrit wu lee Tigre xam nga génération bi di ñëw ñun fekkee wuñ ko mais tamit génération bii di ñëw nañ souvenir dinañ xam ne ci Mbaye Gueye daal dinañ xam ne ci Mbaye tamit moom tam mérité na lu ne si làmb c'était il était un grand phénomène tamit mérité na lu ne ñu amoon drapeau yi tuddee ko wala benn place tamit tuddee ko wala benn écrit tamit tuddee ko ko xam nga écrit benn écrit tamit tuddee ko mérité na lu ne parce que tamit il grand champion bi nga xam ne nii ñun fekkee wuñ ko jamonoom mais am nañ ñu jot a jàngal ñun tey jii buñ naroon créé yenn scène sax wala yenn histoire day am si koñ bi su génnee arène nationale bi nga ah. la laa bëggoon wax sax arène nationale bi tey jii moom mérité na ko bu baax baax parce que def na lu ne si làmb arène nationale mérité na ko yaaw mérité na tamit place mérité na lu ne parce que moom xam nga buñ nee Fass tey jii porté na tur ñoowu Fass moo njëkk a nekk écurie ci Dakar tamit loolu tamit lu lu lu jar a bàyyi xel la tamit ñu tuddee ko arène nationale bi ñu baptisé loolu tamit rafet nañ ko daal. waaw loolu mhm. lu leer kay parce que te jii gars yi am na ñu ne ku vacciné wul doo bëre yooyu noonu parce que war waruñ ko def par force wala buñ ko defoon tey jii huis clos promoteur bu ndaw bi du xam ni muy def parce que dañuy naan mbër yu mag yi rek mbër yu mag yi mais mbër yu ndaw yi ñoo gën a sonn. da ngay liggéey fin saison bi dajale lu ne sa yaay def si yow lu ne sa waa kër def si yow lu ne perte xaalis bu ne boo xam ne nii sa avance buñ ko quadruplé woon sax mënoo ko mënoo ko jot nga xëy ñu ne la mooy loolu noonu xam nga buñ la ko waxee tam da ngay découragé tamit te état bi tamit mu jàppale mbër xam nga bàyyi xel mbëri yi bu baax a baax a baax a baax ñun ay espoir lañ ñun buñ jugee jeunesse bi jug benn mbër bu jugee jeunesse bi day jug làmb dafa bëri ay ay secteur dafa bëri ay branche jaaykat bi da siy bénéficié wu ñu siy bénéficié wu dafa bëri tey ji koñ doo jël cinquante benn quartier wu tey day commune bu nekk am na lu ëpp y a plus des dizaines de lutteurs tey jii buñ gëstoo mbëri tey jii ba ci vaccin yi campagne yi yëpp buñ ko joxoon mbëri tey jii dina am neneen nu muy demee. ensuite du mm. na. su mm-hmm. mel ay ak yeneen yeneen yooyu tudd feebar jamono ji ñu toll. jaadu rek ah, de parce que CNG ñoom lu ñuy dagg lu ñuy defee yëpp ñun xamuñu fu mu nekk day gis pas CNG boo xam ne nii roi de arènes bi sax pas CNG beeg xaalis tey jii bu ñu woowoon ancien gloire yi tey jii ñu ñëw ak yi quelques membres de la lutte amateurs yi comme ay Doudou jee Diécko ñun téye ñoo xam ne nii takk nañ ñemb ah jaaduwul de parce que CNG ñoom lu ñuy dagg lu ñuy defee yëpp ñun xamuñu fu mu nekk day gis pas CNG boo xam ne nii roi des arènes bi sax pas CNG beeg xaalis te jii bu ñu woowoon ancien gloire yi tey jii ñu ñëw ak yi quelque membre de la lutte amateurs yi comme ay Doudou Ndiaye ñu téye ñoo xam ne nii takk nañ ñemb xam nañ lu si làmb financé nañ yàgg nañ leen gunge ci làmb fere nañ def nañ lu ne si làmb ñoom dinañ xam àqul mbër yi donte que mbër yi dañuy def ay erreur nañ jël seen xaalis garaawul mais nañ ko nañ koy def si yenn si yenn si yenn ancien gloire yi. tey jii lu ñuy dagg si mbër yi pourcentage bi da ngay jël chaque at chaque saison di nga gis ay trois cent et quelques de millions yu ñu dagg tey jii bu ñu ko jëloon séddale ko tey jii ak ay ak mbër yi nga xamante ne nii tey jii ancien gloire yi doon bàkk tey jii seen droit d'auteur doo ko gis seen droit d'auteur kenn du xam fu jaar te jii tous de Siteu da ngay gis Siteu tous am ñaata ñaata journaliste ñoo ciy bénéficié wu ñaata nit ñoo ciy kii tey jii tey jii waroon na si am benn droit te jii par exemple boo xamante ni maanaam dañuy jël xaalis bi protéger suñu xam nga lamb gën ko moderniser high level parce que tey jii bu ñu nee football feneen la fekk baax ñun bu ñu nee Sénégal leen rek lañu am muy lamb la lutte c'est ça notre sport tey jii tubaab bu ñëwoon tey jii nga koy won ñool daak football wala ñun ay mannequin lañ du la saf mais boo ko wanee luy làmb làmb dafa garaaw parce que sport la mais culture la ministre de la culture da cee am wàll ministre de la jeunesse da cee am wàll ministre des sports da cee am wàll. Ah,